man de awus leen saan ji
bëgg bëgg Cheikh Khadim maanaam bokk na ci majalis maanaam dañ ko war na na yeesalaat yeesalaat njàngalin wi nañ indi rek benn benn tunaan lu ñuy wax daal ñu ñu ñu njumte mën naa am mooy tey taxliilul asaabi ca tasawud wud du sixaar taxliilul asaabi gaa yi ko firee xalil baram yi xalil ci du wolof du arab léegi kon kii dégg léegi lu muy dégg lu lu muy xam taxlil xam nga xelaalal ayaam xelaalal ayaam xelaalal ayaam kasa kasa xelaala mooy diggante kon digale la digale bu soo defee nii say baram lii mooy taxlil ndox mi laal ci ci laal na fépp maanaam maanaam nga xamante ne kon kon loolu kon ñum te amoon na ci ci baat boobu alxada wal xadar alxada ñaar yuñ boole la ñaar yuñ boole la ñaari baat la yuñ boole yoo xam ne li ñuy maanaam yi ñuy jooxee bokkut waaye dafa lënkaloo alxadaru mooy yàlla bind na Moustapha Diop ak kooku yi nekkoon nag yow day éléments yi ma composé sa yaram mën na fee am téeméeri at léegi nag léegi gi nag Moustapha Diop génn oto laal ko teel lu mu ne këpp yaram wi yàqu ruu gi yaram wi attanatu ko léegi su soobaa yatawafal anfusa xiina mawtiha taw fee ñu ne mooy dañ koy dañ koy tënkal dañ koy lemal dundam nga lem ngoo xam ne seconde yi seconde yooyu atam yi téeméer at yëpp dugg na yi dam ju comme ni nga xamante ne carte mémoire bi ni ñu koy dam joo ba nga xamante ne lu bari dana ci xaj te xaju ci woon léegi gi nag loola jamono jooju suñu boom di jël ruuka te téeméer at yi moom matul ci saayir si ci ci li lim ki gis loola mooy alqadaa do dogal ba xam ne wolof dogal mooy dog dog la xaraar bi ñëw xaasim dog ne man kat maa waxoon lee waaye nangam kon alxadaru mooy li yàlla may nit ki possibilité mu man koo am waaye du ne nag dana ko am ndax su ne force dana ko am kon léegi bu amut góor ka am kattanam sañ a faalu li ma yurit moo tax léeg-léeg mu ne téeméer kat laa la mayoon élément yii moo tax fi toll li tax saytu sa saytu sa sëg wér saytu sa nangam lu tax moo am solo mooy élément yi suñu moom def ci yow ngir nga mën a am téeméeri at élément yooyu bu bu yàqoo da fuy jóge de te su boobaa it doo am aw lay ci suñu borom suñu borom ne la man kat dama dama taxañoon sëg dund taxañ te taw fa anfusa xii na na na mootuwaa kon léegi alxadaru mooy li yàlla ne la mën nga ko fee am alal ak wërsëg ak dund ak lépp mën nga ko fee am loolu mooy xadar liñ la nattaleel alxadaru mooy nattale alxadaa u nag mooy ca cëppaandaw ja la am la am moo xam téeméer yi la suñu borom nattaloon am nga ko wala amoo ko loolee la am booba mooy alxadaa u dog dogal dog nañ ko xalaat xalaat bi léegi nag mooy tamit at da nga war a am waaye nag yaram wi attanu turoo gi kon léegi nag taxañal naa la ko kon léegi alxadaa u kon mooy li am léegi kon léegi yow nit ki mën naa bëgg lu nekk am ko wut lu ne am ko maanaam li muy bëgg am bëgg doon Sëñ Tuubaa bëgg doon am yonent bi misaal bëgg doon ku baax ku nekk ci misaal loola mooy alxadar may naa la ko waaye alxadaa u nag mooy la kat yoon sala sala moom doo ko doon ndax moom am nëbbi yu la mursal te nëbbi mursal jeex na kooku kon xa xadaa la ci léegi dama bëgg am milliard ñu la am nga possibilité am ko ngay ngay dox dox ba ci àgg waaye nag nga tourné ab tournal boo xam ne ku fa dugg dootoo fa génn te kon doo am milliard dogal ba ñëw ne kon yow kat tey nag moom doo am milliard kon léegi xadaa mooy li am ci saasa xadar nag mooy li nga xam ne mën naa am xam ne xadaa mooy dooley buur bi lu ko neex def xadar nag mooy lim la mayoon démb loolu loolu ñu fi jël su fekkee dañuy naan am ñoo xam ne dañuy mën a jàngat ci la waxul xadar wala ñu tuddee ilmul xadar si mbokk bi su am na doom joo xam ne ni fekk naa turwa su su ma saa di tudd doom su su ko tiimee day tari dundam tari ko dana danga am aw fii aw fii ba faatu la ilaha nga xam ne moom ci ci ilmul xadar ci lay jànge loola waaye nag loola mooy maa yumkinu wuquuhu maa yumkinu wuquuhu waaye du maa yajibu maa yajibu nag mooy al alxadar almaqdiyu huwa alwaajibu ko ko ñaan ci dënk waaw léegi ci ci saa ba tey dañu naan comme ñu ne bu dee jàngalee faaxil ci naaw. yaa ko mooy ki nga xam ne moo jëf jëm ci. waaye dañu si ne maata diw sangam. loolu maanaam comme diw sangoo mën naa nekk faaxil.
waaw mu def moom dañ ko dañ dañ ko rey day mel ne.
de sëñ sëñ kii sa sa sëñ Moussa Lo Abdourahmane sëñ Moussa Lo sëñ Abdourahmane Lo nee na ma sa sa sëñ Mat Dem ni mu daa jàngalee faayil moo ko jàngal naxwu daan alfaayilu ki aji jëf ji ki ki ki jëf jëf ji ginnaaw yàlla kul faayil alfaayil baarakallah alhamdulilahi rabbil alamin ay Cheikh Moustapha Diop Kokki moo doon leeral lenn ci njàngat majalis ak ay changement yi ci war a amaat jërëjëf Cheikh Moustapha Diop al Kokki ndeysaan yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko borom xam-xam lool sax di jàmbaar di ko xam ne bu leeralee rek mu leer nañ xam naa ñu jël ko rek ngir tasaare koog mbokk yi ñëpp bokk ko jërëjëf mu doon tey jii tolloog mardi le 4 no- novembre le 4 décembre 2018 alhamdulilahi rabbil alamin
waaw waaw xam naa fi ñuy laajal mooy diggante firqa ñaari fa- fi- fariq yu am diggante xadar yi ak jabar yi. comme kii wax ne maam doomu aadama ji moom. lépp lu mu def rek yàllaa ko dogal ci moom amu ci suwaa. am ñu ne déedéet maam doomu aadama ji lépp lu mu def rek moom suwaa boppam lay doon ñoom seen ñaari wax yooyu. luñ leen di kii.
maanaam ñoom ñëpp jabar yi xadar yi ñoom ñëpp am na am nañ cislaay ci alxuraan xam nga xam nga yëf yëf yi buur la buur maanaam fi ñu toll noonu si manaar sama maam dara ci jox naan ku sant yàlla ah xanaa kon de li li muy xaar tax li muy xaar tu na wax ji de tu na wax ji maanaam lépp yàlla yàlla dane li man shaa minkum ay saqim mu mu mooy lan al ixtiyaar comme comme neex jub waaye bu ma mu ne nag ci waa tasa una illa an sha allahu rabbil alamin forcément ku ma neex rek lay doon du du la soob fekk suwuma kon firqatu jabriya li mu wax wér na ixtiyaar yi li li mu wax wér na kenn ku ne nag ci ci ci ci ñoom. maanaam maanaam fi ñu toll yow li may tudd naan alfalsafa hiya aqlanatul aqlanatul waaqi aqlana maanaam ñoom fi toll dañoo bëgg a rationaliser dund gi dong waaye ñëpp xam nañ ne kenn deful dara. waaye nag ku njaaloo ba noppi ne yàlla yow ma tax a njaaloo yàlla ne waaw waaye mali duma. laa yus al wax maa yafan la wax. tu tu na wax ji ma ma sa sa sa sa sa sa jëwoon bis ku naan da damay xaar ba ba yàlla ginnaaw ma ne daa daalika mi naa la amatul xislaani. nekk nekk ci toor ba noppi ne ne ne su ma caa liggéey ma ne foofu nag diggante foofu aljobriya ak al al al al ixtiyaar noonu suñu mbaam daa jël am xar. utul ko buum juróomi mètre takk ko takk ko ko ci bant bi. ne ko nag am nga xorriyatu wëndeelu ci juróomi mètre yi. am nga ci am nga am nga am nga xorriya ci wër ci ci ci juróomi mètre yi. waaye mënoo ko génn.
mënoo ko génn.
aljabriya mooy mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo génn léegi nag fi toolu xorriya googu xorriya masruuta la. masruuta la. maanaam xorriya sa amut. yow juróomi mètre dong dong ci nga mën a wër.
xariya mu xayyada.
mu xëy dala waaye te bi amoo déedéet ta maasa dara ko fa yowutu bi man maa leen limité ne fii nga yem man waxuma ko di xam man waxuma ne man fii laa yem kon kon kon kon awra yowut maanaam moom xoolal fi ñu toll ca mootasi la ba bañ naan jëfu ji jëfu nit kon yàlla kon nag léegi nag kon léegi nit ki kon daal moom kon léegi suñu doom mën na ko ca bañ a togg jëf maanaam léegi ndax jëf ji wàññee ko bind maanaam maanaam ñoom moskal dañ ne balaa xoriyaa am nit ki moo am xoriyaa def li li li li muy def ci wax dëgg de waaye wax yi moom ci weddi na ko ahlu sunna dal daal ne déet alkas bu yàlla bind jëf ji kii kas bu kooku waxu dara bi waxu dara de lu mu wax kas bu yàlla ko teg fii ma mu jël ko waaw jël gi nag ah kon kon yàlla anamu jël gi yàlla lépp lu lépp machine bi maanaam ba fi ñu toll ci seel mu kalaam toll tey am na beneen bo muskila bu gën a fort mooy asar wala ci ci tool xeer ci adduna asar lu tax mu am fi kaayante yëpp sarkat moom xam nga sar boo xamante ne yu addi ila xayrin asma kon ma ngam luy loolu luy loolu waaw ma ne ci waa ji ne waaw man de kii dafa juddu doon ab yéefar gone gi juddu ba màggat yéefar faatu kee juddu bi mu amee fukki at ak juróom-ñett suñu boom faat ko fukki at ak juróom ñaar ñi tase fa yàlla kii ne ko waaw man de yàlla yow yaa ma def ab yéefar ñu ne ko yàlla ne ko de tum naa dagatan wax day taxut nay nay dënni mu mu mu daal dina ne ne kéem fukki at juróom ne ko man kat yàlla yow lu tax nga gàttal sama fan ne ko daaw ba nga doon yéefar yéefar bi ne ko est-ce que yéefar bi ne ko waaye kon yow lu tax kon gàttaloo sama fan ba dama doon yéefar yooyu maanaam li mu lay wax mooy kat kenn xamut aw lañ noonu daal li fi ne daal mooy ay jaam lañ dogal baa ngi am suñ kaw yàlla defoo ko lañ bëgg amuñu pexe de maanaam kenn fi doon im kalam su wari liir seen tontu yi amuñu tey dara wéru ci ñëpp bëggat ndax yow da ngaa bëgg a da ngaa bëgg a taqdis yàlla da nga ko bëgg a taqdis nekkal yàlla ku teddal ku ne ko nangam la yàlla yàlla du tooñ ba noppi ne am naa xuriya yi na ab yonent li koy laa yekkoon nañ laa si xujjatun baax dërsul tum naa wax ji luy loolu sax laa sim ma tax ma tax yooyu ñu loolu li gën a noppale mooy ba ba jaddugu mooy lu comme kii wa in tusib xasan yaqul haasi min indillah waaw wa in tusibhum sayyi'atun yaqul haasi min indika qul kullun min indillah ba jëm jóg mu ne maa asaabaka min fa min indillah wa maa asaabaka min fa min nafsika dégg nga dégg nga dégg nga wax ji waaye nag foofa contexte contexte wax ji mooy léegi moom maanaam nafiqee ko doon wax nafiqi ñooñu ñoom ànd ànd ànd yonent bi saa su su lu métti amee ñu naa ñoo de yéen a waaw maanaam yéen seen yàlla ji kon xoolal di leen di leen a seetaan bu neexee ñu naa di noonu la su suñ boobu nag nag ni lépp ci ci yàlla la lay jógee loolu moom dafa am xaddiyee boo bu muy ci waxal waaye lépp yàlla yàlla ku yàllay duma yàlla du duma moo moo ko neex comme baal moo la comme mbaal ma ba léegi nag foofu la li gën mooy ne ab jàng rek barakallah alhamdulilahi rabbil alamin cheikh Moustapha al Karim boo am fi am fi am solo tuuti rek doon mu ci lañ koy tëje mooy dama ne suuf yankee yi ñoom ulamal kalaam yi ñoom dañuy wax al al al ilah problème yi ilah la lañuy wax ñoom ilah bi lu lu war a def ak lu mu war a def léegi suuf yi bi moom toog ci jotaay bi déglu ñaan ñaan ñaan waaw ilah am na ñu ne lu tax ñu ne bu ilah amutoon nangam du am ñu wax wax coow ba kii ñu ne waaw ilah nag bu nag bu ayoo ba nag lu nag kon moom suñu gëte moom ñu ne ilah nag bu moom ba noppee bu ayoo ba noppee nag moonu fi indi ci adduna ñu ne ah dañoo digal nag ñu def naa ma nagam suuf yi bi ne waaw lan lan lan leen digal ñu ne ko xanaa jàmm ko suuf yi bi dañ bir daw moom moom arrabu bi bi la la lay xool arrabu uluhiyya yooyu yooyu yooyu ndax uluhiyya mënu ko xam la laa yaxlamu llaaha illa llaah moom su su bi lim solo mooy kooku ngeen di wax buur boobu lu ma digal ñoo ko xaar dem ci dem ci tool ba dem ci tool moom.
la ilaha illallah barakallah cheikh Moustapha al Karim alhamdulilahi rabbil alamin ah tabaarakallah ah si sa njëriñ li dama xel mënu koo takk di rot alhamdulilah kon ba tey ci ba tey muy waxtaan woo xam ne Cheikh Moussa Cheikh Moussa Diop al Kokki ko doon def muy waxtaan woo am solo wax dëgg yàlla di lay bire ak di wax ci yoo xam ne lu jamono fi mu ko doon def tey jii nag tolloog mardi le 4 décembre 2018 waaw sëñ Moussa Diop al Kokki yal na yàlla sàmm ko te dëgëral ko ku baax di murit di borom xam-xam lool ku jàmbaare waaw jaajëf alhamdulilahi rabbil alamin